الحمد لله الذي من على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا وصلى الله وسلم على أفضل الخلق بالإطلاق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة mbokk yi nuy déglu sunu kàddu di bawoo fii ci Safina FM 98 point 2 ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi kilifa gi Thierno Hamidou Yoroban ak mboolem njabootam di nuyu sunu directrice Hadja Ñuma Ba di nuyu sunu technicien Samba Sy ak mbooleem ñu koy jàppale di nuyu képp ku nuy déglu ak ku nu dégluwul te di dégg di ñaan yàlla yal nañu boole ñun ñëpp tawfiq tabaarakallaahu di jéggalu itam uh, géjegu metti gi uh, ñu ngi leen koy jéggalu bu baax ndax tabaarakallaahu waaw boo ngaralee rek fenn fu nekk day am as comp rek waaw loolu moo tax ñu gëj fii te yu bari yeeg déplacement yeeg yooyu rek moo tax waaye eh, namoon nañu wax ngeen di ko dégg namoon nañ tamit tabaarakallaahu dégg seeni réaction gannaaw wax ji kon ñu ngi leen di jéggal loolu yépp su ko defee tamit comme ni ko Oustaz Pape Fall waxee ci bandu annonce bi muy an nasiha laaye biir nga xam ne dañ daan dàkk actualité yi di ci wax lanu ca xam kës néew ak lanu ca xalaat ngir gàgganti jamono daanaa tegtaloo bayitu sëriñ Moussa Ka bi mu daan wax naan lu may li may nelaw nelaw du a yeete li may gëlëm gëlëm du a woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngir réer amaana mu deesee yeete dootul yandoor kon tabaarakallaahu <clears throat> na seexallaaye biir e, yàlla dogal itam actualité bi nga xam ne tey jii mooy ndeyu actualité li mooy élection yi nga xam ne tey lëmbe na réew mi e, ña nga xam ne yàlla dogal na wax lu rafet rek lañu daan sentu ci ñoom ni <clears throat> ci ëpp ñu ngi taxaw di wax lu rafet luy defar luy jur jàmm waaye seen noon ya nga xam ni wax lu ñaaw rek ak wax lu leen wóorul ak sos ak yàq rek moom lañu moo leen yitteel ndax loolu lañu xam ñoom ñu nga ca seenu manin kon day jot sëkk nag képp koo xam ne xam nga lu baax loo xam ne mën naa bijji jàmm man naa fegu ay nga def mu nga def ko muy sa participation tabaarakallaahu mooy loo xam ni jub si na di xëccoo njiitu njiitu réew di ko xëccoo waaw xam naa contradiction yu bare am na ci ndax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mas na wax ne Omar ibn Khattab nee na pouvoir ki koy xëccoo bu ko ko jox waye ki koy ki ñu koy jox moy bañ nañu ko forcer kookoo ko mom kon tay bu xëccoo bi melni tul leen malé sosalante waxalante lu dul dëgg wër wor woroo weeroo nekk seen way da ngay xam rek contradiction amna waye ku ci déglu yonent bi sallallahu alayhi wa njàngaleem boole ci xool jikkoom na mu daan doxe di nga xam ne e, yittewoolu jariñ nit ñi moo ëpp yool yow ci sa bopp ngay bijji loo xam ne sa njariñ rek la sa njariñul kese mooy li ñuy wax intérêt personnel e, tabarakallahu mas naa ci dégg nit ku weex ku wax xam naa dafa sànni bëtam ci réew mi ak noppam nee na Sénégal ñaari mbir a ko gàllankoor mu ni ma ni ko ñan mu ni ma politiciens yi ak sëriñ si man nag su ma nee sëriñ si rek da ngeen di xam ni waxuma nitu yàlla yi parce que sëriñ dafa am nitu yàlla am te loolu kenn duma ma ci weddi ndax sëñ kër Si mas naa wax ne Sénégal xàmmewuñu dem màkka aj aj màkk ak aj màkka xàmmewuñu rey ak rendi ñu miraas ak séddale xàmmewuñu sëriñ ak nitu yàlla nitu yàlla du yàqum réew waaye sëriñ moom mën na yàq am réew waaw sëriñ nag moom sëriñ Cheikh noonu na ñetti façon la yi ko journaliste bi laajee ni ko que le rôle de marabout au Sénégal Au Sénégal, il y a trois catégories de marabouts. Le charlatan, c'est un marabout. Le chef traditionnel, que l'on appelle marabout, et l'homme de Dieu. ni ko lan moo rôle sëriñ ci Sénégal mënu ko Sénégal ñaari façon de une femme. le charlatan moi qui ne ci biir pantre bi n'a la takkal bii sangoo bi te Sénégal marabout lañ koy wax le chef traditionnel moi ki nga xam ne bàyyee fi nekk bàyyee ma fi nekkoon di sëriñ ah ñu xam ko muy soli grand boubam di taxaw ba jóge fi dom ji muy chef traditionnel nee na looloo tamit ci réew ma marabu lañ koy wax elum dëjë ak nitu yàlla bi nga xam ni boo nammee sa borom boo àggee ci moom mu wulli la ba nga nooy raxas la yóbbu la ci sa boroom kookoo tam ci réew ma marabu lañ koy wax mu ne kon boo dëkkul ci réew ma noo leen di xàmmee looloo tax ci ngay xame ni su ma nee sëriñ si rek xamal ni sëriñ si laa wax mais waxuma nitu yàlla yi tubaab bi nee na politiciens yi ñoo yàq réew ma ak sëriñ sa ma ne ko politiciens yi nu ñu yàq réew mu ni ma fii ci France ko képp koo fi gis mu bëgg am réew di ko di ko dagaan bëgg siiw doo nga tax waaye du affaire alal ndax fii moom képp ku fi yorum réew boo amee alal ñu tëj la kon xalaatu wut soxla réew mi fii ci France te fekk wut alal nga ci jublu danga koy sàkkoo rek ngir siiw xëy na wutu tur yéen nag ci seenum réew bari waa nag koy dagaan am réew wut alal la tax nga di ko def duy ba giijal say bokk duy ma ne ko sëriñ si nu ñu yàqee réew ma mënu ma sëriñ si it nañu yàqee réew ma mooy mobiliser mbooloo moo leen gën a yomb régler problème ku ci xew lu bés sa wilaya dina àgg ci fexe fexe ba mbooloo mbooloo ma foo sànni baat mu takk googu wilaya moom wilaya gu wér la mat di ko man waaye bu problème ne kët ni jonn moo xam sa njaboot la dal mbaa mu dal la doo ko mën a régler mbaa mu dal ci réew ma doo ko mën a lijjanti nee na ñoom régler problème moo gën a yomb ci ñoom euh, mobiliser mbooloo moo leen gën moo gën a yomb ci ñoom régler problème lii may wax nii ko dégg xam ne moo am bu ko defee nag loolu bu jub see nit ñi commencé di daw di dugg fu nekk ñay sosa ngay sos ñay wax lu amul a ngay wax lu amul ñay sëriñtoo ngay sëriñtu ñooy yor seen xaalis di jënd nit ñaa ngi jënd nit ñi ngir lan dama bëgg yor réew mi mu jaral leen saaga jaral leen xeex jaral leen noonoo jaral leen bàyyente jaral leen foñante te benn cause la ñuy défendre na nañu mooy réew mi la ñu soxla moom la ñu bëgg a defar moom la ñu bëgg a yëkkati ba mu àgg ci dimension bu kawe nit ña am jàmm ci wàllu faj am ko ci wàllu lu ñuy lekk am ko ci wàllu lu ñuy naan am ko ci lu ñuy fajoo am ko ci lépp kenn ku ci nekk loola ngay wax ni moo la tax a jóg loolu bu la taxee jóg sa moroom jóg ngir loola ngeen bokk benn objectif dëgg la mën naa nekk waaye nag war nañ ko mën a rafetal te góor gu baax dafa wax ne ñaar ñaari taalibe yi jóge ci daara ji dem di taxani mat ca àll ba pour indi ci daara ji bu ñu demee di taxan matt ñoom ñaar ñoo bokk daara ji di taxan pour indi ci daara ji suñu demee bay xëccoo matt ba di ca xeex nee na ñoom ñaar ñàkkul ci ñoom kuy taxan di jaay waaye bu doon taxan indi ci daara ji nga du jor xëccoo ndax ki nga koy xëccool bu ko jëlee tamit ci daara ji la koy indi te ci nga ko jëme woon mun nag ñaar ñuy taxani di indi ci daara ji bu ñuy xëccoo matt ba di ca xeex am na ca kuy taxan di jaay loola rek nga ciy déggee royu ñu tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jikko yu kawe kawe la ko yàlla joxoon wa innaka la ala xulqin azim saida ila samai sabia yéeg na jëm ca juróom-ñaareelu asamaan moom yonent bi wa wasala ila sidratil muntaha dem ba àgg sidratul muntaha suma aada ila ardi yaxlubu saatahu dem na juróom-ñaareelu asamaan sidratul muntaha ak ak pays yooyu nga xamni la fa nek ci ay teranga, ak ay manoré mu dellu sawaat ci souf ñu seen ku mu sukku ci suufu am xar di rat di rat meew loolu simplicité ak modestie ci la yam ñu seen ko yakhsifu na'lahu moy moy da ay dalam dag mu diko mu diko wut fin di feer ñaw ta dem fofu ba ba dellu wa yakulu ma'al masakin sukku di lekkandoo ak miskin nga xamni bu ñu añee du ñu reer muy bokk ak ñoom di lekk ci benn plat fi saxnin waaxidin waaye loola la ko ko def kaana kabiran qabla ay saada yàlla def koo jox grandeur grandeur bu mat a mat a mat bala mu yëg kaw asamaan daa mat door a yëg wa zalla kabiran baada an nazala ba mu dellusi mu gën a tee màgg gën a tee rëy ndax rëy na avant muy dem dem yàlla fecc gën koo fecc li kabiran duna takabburin nekk koo xam ne ku màgg la ku reuy ko ko am dimension te nekul di koo xam ni day reuy rëylu aziman duna taazumin nekkoon it koo xam ni mag mag màgg la te mag màgg luwul benn xakim arab dafa wax ni kun aziman wadudan قبل أن تكون عزاما ودودا waaw mu ni nekkal ku tedd jikko nag moo la mën a teral boo ko defee nga nekk wadu dan te charte la ci nga nekk ku ñëpp bëgg waaw nga nekk ku màgg ku kawe jikko ñépp bëgg la parce que loolu mooy mooy payam qabla an takuna bala ngay nekk isaman ay yax ci biir bàmmeel wadu dan ak ay sax arab bi dañu mën a wax boo seetluwul ñaari duudan yi ñaari waduudan yi benn bi waduudan la benn bi duudan la waaye dafa am waaw atf mu ni kun aziman waduudan qabla an takuna izaman waduudan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay woon loolu kon roy jikkoom dafay baax ci kenn ku nekk ci loo mën di wut mag ñu baax ñi ko daan roy itam jëluñu woon àdduna def ko muy kër jaaruwaay rek lañ ko jàppe woon moom la waykat bi xam inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa waxaaful fitana am na ñu wax sa arafu dunya nazaru fiha am na ñu wax nazalu fiha falamma alimu annaha laysat lil xay li xayin watana jaaluha lujja wa taxazu salih al amali fiha sufuna waaw nee na yàlla am na gaayam yoo xam ne jaamam yoo xam ni jaam ñu ñor lañu yuy ñeewa lañu waaw ñoom daal war nañu gannaaw àdduna ndax ragal fitna wala wàcc nañ ci àddina te ragal fitna lool xool nañu ko nag ni jàkk moom àdduna ba ñu ko xoolee ba seppali ko lañ ca xamee lañ ca tiire mooy xam nañ ni fii du dëkkuwaay buy béel waaw kenn mënu fee am vie éternelle alxayaatul xaalida kenn mënu ko fee am dund di wéy ba ñu xamee loolu jaxaluha lu jatan wa taxadu salihal amali fiha sufna ñu daal di jàppe àdduna daal benn ak dex rek walla ñu jàppe ko géej wala boog ab déeg boo xam ne daal traversé daal moo ci gën ndax géej gu mel nii comme mënu see taa mënu see toog euh, géej moom wala dex comme mënu caa ferankalaayu daal li ci gën mooy nga daal di fexe ba wut noo traversé dem fa nga mën a ame lépp ñu daal di jël nag jëf ju yiw def ko gaal teg ko ci kaw géej googu wala dex googu pour traverser jàll mag ñi noonu lañu daan def di ko royo yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee itam dañuy yedd leader yi di yedd militants yi gis nga lii homme politique wala militant di daj ci partem ci campagne ci meeting ci jaayi carte ci tàccoog fecc tëgg ak saaga loolu bu ko jullit dajee ci diine ci ay farataam ak ay sunnaam ak ay mustahabaatam dina nekk wàlliyu maanaa li politicien bi daj ci yooyu ci meeting ak saagaak jaayi carte campagne ak ba xëy xëy ca loola ñu def ko ministre wala ñu jox ko ndombok tànk bu kawe ci àddina loola bu ko jullit dajee ci diine ci wàllu ay farataam ak ay sunnaam ak ay mustahabaatam taxaw temm ci imtisaal bil awamir ak ijtinaabi nawahi bàyyi ay tereem tey jëfe ay santaaneem jullit bu ko daj ci diine it nekk wàllu dinaay wax ni fonk gi nu fonk sunu leader politique yi teg leen ca kaw bu nu fa tegoon yonent bi rek nga gis buntu feeñ waaye yëfi dañu koo juutal dañoo fekk la war a liñ naan taqdimul muhimma alal aham <coughs> la war a na jiitu la desal gannaaw te mooy jiital yàlla jiital yenent bi jiital defar seen jikko door a ku ñuy àndal ñu door a ànd ak moom <coughs> su ko defee danañ ca boole ci seen bagage yi nga xam ne moo leen di gunge yeneente jàmm yërëmante suturaalante dimbalante loola nag ci xol lay tege xol bu rafet xol bu rafet boobu nag dina la jàppale ci àdduna naam dina la jàppale it àllaaxira ndax dañu ne alqal alqalbu salim ittaqi naqi alqalbu salim attaqi annaqi xaali min alxilli walxeqdi walxasadi huwa alladi yunji saaxibahu yowma alqiyaama nee na xol boo xam ni dafa mucc ayub بور واخ نكو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم من خول بو موتش ايوب بوروم راغال يالا سيل ولا خول با سيل راغال يالا نتا خول با موتش تي كينان موتش تي مبانيل موتش تي خيتي يو سيو ييغا خامني دا فاي تانتي خول با دو يينه مروموم jaamam wala moroomam nitam dara ci yiw xol bu judd ci loolu dara newu ci nee na xol boobee mooy womat borom boo dugal ko ci aljanna yu kawe moo koy musal ci musiba bu yomal xiyaamee borom bi junj na ko ni yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bisa ngi ñëw alal du jariñ ay doom yu bari du jariñ nga ñëw rekk fekk sa xol dafa mucc ayub moo lay jariñ su ko defee ci wàllu yedd borom pouvoir yi ci ni ñu war a taxawe nettali naa leen ni bi nga xamee ni Omar ibn Khattab mi ngi fii te yebal benn gouverneur mu nekkal ko xim sa ni ko boo demee toogal ma fal yow yowey seen amirul muminin yàlla dogal bi muy def tournée moom nu xataab ba àgg xemsa waa dëkk ba ni ko gouverneur bi nga nu booleel defe naa saad ibnu amir la tudd waaw damay jaawale diggante Saad ibnu Amir wala Amir ibnu Saad xam naa ne daal ci yooyu la ba ñu ñëwee ba muy def tournée ba ak si ximsa waa dëkk ba daal koy wax seen doléance ne ko ñun ki nga nu booleel doyunu waaw mun leen luy sikkam ñu ne ko daal gis nañ ci moom ñetti défaut yoo xam ne daal moo tax daal bu nu suñoon nga changé nu ko wutal nu keneen mu ni leen yan mooy sikk yi ñu ni ko daal bokk na ci balaa génn ñëw ci recevoir nit ñi balaa génn ñëw nit ñi di ko xaar pour seeni soxla seeni doléance balaa génn daanaka onze heures dina jot te bu ñu sonoon huit lay ñëw waaye onze heures daal lay agsi ci mbooloo loolu jaaxal nañu lool beneen bi ci des mooy léegi léegi mu am journée lëm kenn du ko gis kenn du ko dégg toute la journée du ñu xam fu mu nekk mu ne ak ban ñu ni ko bi ci des mooy day toog ci biir mbooloo ba yàgg mu mel ni kuy crise waaw loolu nag li muy firi mooy wérul comme wérul nanu bàyyeeg sunu dëkk te dem ñun ñu seeti ku wér ma nu xataab daal di koy woolu mu ñëw mu ni ko toogal mu toog mu ni leen nettali leen yi ngeen waxoon ni mooy sikk si ngeen xam ci moom ñu nettali ko ci kanamam mu ni leen waa mu ni Umar ibn Xattaab wax nañu dëgg de yooyu yooyu ñu wax yëpp dëggal de Omar ni ko waaw léegi loolu lu ko waral mu ni ko wax nañu ni bala maa génn ci mbooloo mi onze heures jot te huit laa waroon a génn li tax may naajee génn man may toggal sama bopp ndékki ndax duma lo jigen ndax gor su jigen, kenn duko ko lo, kenn duko ko sonal te togu gor du gaaw lolou motax may naaje gen li taxit mu nenañu itam dina tok leg leg journée bi lëm duma genn kenn duma gis mu ne ko loolu li ko waral menn mbubb rek laa am mooy mii nga gis ma sol ko su ko solee semaine day xaw a tilim su ko defee nag ma xëy benn bis fóot ko weer ko yendoo ko toogaanu pour bu woowee ma sol ko loolu mooy tax journée boobu yépp du ma mën a génn damay xaar sama mbubb mi wow ci en tant que amirul mu'minin nag nekk président de la république wala nga nekk buur nee na bu ko ñetteel mooy dañu wax ni damay toog ci biir mbooloo ba yàgg may crise mu ne loolu wax nañ dëgg dafa am lu may ko rek bu ko defé sama yaram daldi di daw daldi di trembler ma melni ku crise lola nak moy khubaybul ansari yi bu mu toubé ni daf gëm na lislaam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té ay mbokam diko ray diko dagat ay morso boba mangi ngi taxaw té àttewuma ko ñi mu moo daw pour àtte jaayuma sama bakkan pour déni ni mom. seetaan googu ma seetaan ñu dogot ko ay morso loola bu ca sama xel demee rek fu ma mën a fekk ci àddina ma crise loolu mooy sababu ñett yooyu ñu wax Omar ibn Khattab daal di yëngal boppam ne ko waaw bindal ma list ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci dëkk bi ñu gën a pauvre ba muy bind liste ba moom ci boppam turam la jiital ca kaw tête de liste bind ñeneen ñi mu xam te ñu nekk ay pauvre ci biir dëkk bi bi mu joxee Omar kayit gi Omar xool ko gis turam ci kaw a kaw a kaw Omar daldi ni ko nañ yëkkati ci caisse noire bi junniy dinaar ndax mënoo jiite am réew te amuloo caisse noire goo mën a jàppalee miskin yi ba yow sax nga gën leen a miskin kon da dañuy génne ci baytu maalil muslimiina junniy dinaar jox la ko muy sa sa caisse euh, noire Omar daf ko ko wax rek mu daal di xëbaat daal di kirisaat ni ko loolu su ma ko defee dem safara dërëmu jullit yi du ma ko lekk nañ ma bàyyi ci miskinerie bii rek ma ànd ceeg ñoom xam nga loola ku koy xool ku ne moo xam yaa yorum réew tey moo xam yaa ngi ko bëgg a yor ëllëg bu dee lii ma wax dong ni nga nar a doxe doo ko xëccoo bay saaga doo ko xëccoo bay noonoo doo ko xëccoo bay toroxal kenn loola moo xew xem sa keroog bi ci desit am na ñoo xam ne bu ñu amee yéene mbir mi dox te baax te tegu ci yoon duñu ko wutal condition yi man rekk maay war a taxaw ca kanam dañuy jàpp ni na dox rekk loxo yu mu mën a doxe baax na comme dox laa bëgg na dox loxo yu mu mën a doxe baax na te loolu jikkooy sang la bu boobaa danga ca dem ba bu la nit lebalee lu bon doo am yéeney fay ko lu bon lim la lebal lu baax nga koy fay su ma juumul nettali naa leen diggante Abdullah ibnu Zubayr ak Muawiyatu ibnu Abi Sufyaan ñoom ñaar dañoo digaloo ay tool boo demee ci dëkku kaw yi kii di bay gerte kii di bay dugub wala ñoom ñaar ñëpp ñuy bay ñaar benn façon bu bokk am na benn xuduud bu nekk ci seen diggante ñu di ko aw dig mooy ràññale diggante tool kii ak tool ka ca des Muawiya ak Abdullah ibnu Zubayr dañoo digaloo ay tool seen tool ya nag moo gën a riche sunu tool yi ndax tool ya xeetu meññet yu nekk dana ca am ci xeetu légume wala fruit waaye day amit ak càmm gu ne ca biir élevage daf cay am xeeti jur yëpp dañ ko cay sàmm tool dina dem ba am ay surga ak ay jaam yoo xam ne ñooy saytu mbay ma ak tàggat jur ga fa nekk di leen sàmm muy tool yoo xam ne tey lépp nga fa ñu digaloo ñoom ñaar ay tool Abdullah ibnu Zubair ak Muawiya ibn Abi sufyan benn bés Abdullah ibnu Zubair bind lettre Muawiya ibnu Abi sufyan Niko, yow muawiya sa jur gi dañu génné sa tool dugg sama tol yàq bare bare bare ci sama tool yi ca mbay ma ca légumes yak fruit ya malay xamal ne bu amatee dinaa la song xeex ak yow te duma la ak dara bu bindee lettre bi yónnee ko muawiya ibn abi sufyan muawiya dal di koy lire ci kanam ay njabootam waaw yam na doole borom mbooloo la borom yi garde corps la boroom lépp mu liir ko ci seen kanam ñëpp dégg di fuccu mun leen lu ngeen ci xalaat am ku jóg taxaw ne ko leenu ci xalaat lu gàtt la mooy song ko yow bala mu lay song comme mi ngi xalaat di la song yow song ko te boo koy song yebalal ci moom armée boo xam ne soldaar yoo xam ni bopp baa nga ca moom àgg na ca moom gannaaw gi nekk ci yow fii manaa loolu li ci jublu rek mooy mbooloo mu bari lool moo xam ni bu ñu déparé di dem ñu jëkk a jóg dinañ dem ba toog janoog moom te ñu mujj ba léegi génn gu ñu dëkk bi ndax bari mu ne ko yebal fa ñu toll noonu ndax mat nga ko man nga ko Muawiya ni leen man na xalaatuma loolu ci boroom xel mu rafet rek waaw bu la nit lebalee wala mu tàppaas la wala mun la coy nga bañ ko ne gel ci xel mu rafet rek mu aween leen man daal loolu sama xalaat ñu ne ko luy sa xalaat mu ni abal leen ma bi ak fëy ñu abal ko bi ak fëy mu daal di bind bindaat tontu daal di yow Abdullah ibnu Zubayr dégg naa li nga wax ne nga sama jur dafa génne sama tool dugg sa tool yàq fa su ëllëgee bu amee di ma song xeex ak man te doo ma bàyyeeg dara léegi nag man tamit ma lay xamal ni man Muawiyatu ibn Abi Sufyaan alal ju ma mën a am ci àddina teraanga ju ma mën ci man am ci àddina sa jàmm ak sa contentement moo ma ko gënal fuuf comme nag àgg na la fii sama tool boobu ak jaam ya ca nekk ak mbay ma ca nekk ak jur ga ca nekk yëpp boole naa may naa la ko nga booleeg sa tool kon bis ni ko tey woo booba côté du ma jaaratuma fa yaa moom la ma moomoon ak li nga moom lépp daal di jël lettre ba lem yónnee ko Abdullah ibnu Zubayr gis nga gor gor rek la mën a jëfanteel waaye yal yàlla musal ci jëflante ak baadoo la eh, bi lettre bi mu ko teppee di ko liir njabootam yépp dañoo sëgg kenn siggiwul ndax rus ndax ba muy bind lettre ak ba muy fippoo ko ak ak wax ñu ngi toog waaye réponse bi dafa toll dafa niroowul ak moom la mu yónnee woon moom kaani la yónnee woon gu xat ñu yónnee ko enveloppe bu lem bi ñuy lii bi muy lii lettre bi ñëpp a ngi sëgg mu ni leen siggi leen wax seen xalaat ñu ñu sëgg rek mu leen déet loolu du solution wax leen ci seen xalaat ñu sëgg rek ndax dañoo rus mun leen jóg leen kon ñu dem seeti Muawiya dal di ànd def gàngoor wuti këram moom nee na du ko bind lettre da koy tontu face à face waaw da koy tontu directement mais du ko jaarale ci këyit daal di ànd ak ñoom ñu def gàngoor dem ba àgg fekk Muawiya toog Abdullah ibnu Zubayr ni ko Muawiya dama bëggoon nga lettre bi ma bind bu dee mokkal nga ko nga wax ma dégg li nga wax Muawiya ni ko da nga bind lettre wax ci ni sama jur dafa dugg sa tool yàq yàq fa te bu amatee di ma song xeex te doo ma bàyyeeg dara ma tontu la ni la loolu dégg naa ko waaye man lépp lu ma am ci àddina ci alal ak teraanga maa ngi ko li ma ko gënal mooy sa contentement ak sa mbégte moo ma gënal lu ma mën a am comme toll na la foofu nag man bis ni tey sama tool boobu ak jur ga ca nekk mbay maag jaam yaag lépp may naa la ko nga booleeg sa tool ci waxin wu rafet Abdullah ibnu Zubayr ni ko waaw kon nag bis ni ki tey maa moom ñaari tool yi maa moom sa tool moom sama tool maa wii ni ko dëgg la yaa moom ñaar yëpp abdullah ibnu zubayr ni ko nag njekk-njekk rek koy fay man ci waxin may naa la sama bopp ak mbooloo mi ànd ak man yëpp kon nag jàppal ni yaa ma moom boole nga ak moom ñaari tool yi ma moom moom kon man tey yaa moom moomaale sama ñaari tool ak sama gàngoor ñu daal di dëppante ñoom ñaar akolaadante fóonante joxante loxo jéggalante rafetal lépp loola kuy dox mbaax ak njub ci foofu ngay jaar waaye nag njekk itam da lebal njekk ku ko mérité Muawiya boroom xel la Abdullah ibnu Zubayr boroom xel la te boroomi sago lañu waaye jamono boo lebalee njekk ku ko mérité wul doo amuk pay defe déception rekk nga ciy am doon nañ ko nettali ci téere téere taarix yu njëkk yi yu ñu daan jàng wala téere lecture yi ñu daan jàng yu arab yi qiraa di ca nettali pour wax rek ni booy leb booy lebal njëkk lebal ko ku ko jar ku ko jarul boo ko lebalee tamit déception rek nga ci am ñuy nettali gënn góor gu tëdd néegam góor gu mage di di sest ay rë ay rëbb di dàq benn chakal chakal moom la wala di wax till moom la arab yi azibu ay rëbb di dàq benn chakal ba chakal bi dagaj ci biir dëkk bi daal di daw rek dagaj ci biir néeg góor gi daldi tëdd ci suuf booba ñu ngi koy dàq dem na ba mar góor gi daal di ñokket daal di delloo bunt bi taxaw ci biti bi gaa yi rombee xiin xiini xool amul chakal bu dugg fi góor gi daal di tàllal loxoom ni leen déedéet dugg fi de ba ñoo ñëkkoon ne dem mu ne astaxfirullah daal di duggaat fekk till gaa ngi tëdd ci ci néeg bi ci suufa lal bi ndeysaan di nelaw ndax dafa daw ba sonn dañ ko dàq mu daw ba xëx mi ngi tëdd commencé di nelaw góor gi daal ni ah kon nag mën naa tëdd ci kaw lal bi àggale sama sieste bàyyi ko mu nelaw ba récupéré mu ubbil ko bunt bi mu dem daal tëdd bi mu tëddee forbët till gi nelaw ba yeewu daal yéeg ci kaw lal bi daal di xàmp lexub góor gi ba muy naaj mu daal di jaar ci fenêtre ba dem bi mu ko nettalee nag benn arab yi mu ne ko da ngaa lebal njekk ku ko jarul waaye fi nga ko jëlee ak lim la fayee du benn nit ñi nag am nag ñoo xam ne ay chakal lañu boo leen lebalee njëkk duñ la fay ñoom xamuñu njëkk di amuñu ko amuñu njekk xamuñu ko njëkk di lañu xam moom lañu am su ko defee. su boobaa boo bëggee nekk njiitu réew dangay am tolérance dangay lewet dangay am yërmande waaw dangay am tolérance da ngay lewet dangay am yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko ci royee rek xam ni moo raw ñëpp ndax gis nga bi muy def fatxu makkata booba Ousmane eh, ibnu Talha moo nekkoon moo yore woon caabi kaaba gi ndax kaaba gi dañu ko dañu ko dañu amoon gardien boo xam ne moom moo yore caabi ji waaw ndax dañ fa amoon seeni i nag yoo xam ne fa la nekkoon ndax seen yàlla yooyu yëpp fa la nekk te seen yàlla yooyu dañu ko fonk lool kon nag duñu ko bàyyi foofu noonu noonu di ko yàq wala dara ñu wutal ko gardien bu ñuy wax Ousmane eh, ibnu Talha mu di ko garder. bi yonent bi di def fatxu makka dafa ñëw ba jub kaaba gi osmaanum talxa ni ko ràpp tëj dal di yéeg ca kaw ah yonent bi ñëw amul fu mu jaar ba dugg parce que que gardien bi tëj na ko dem na yéeg ca kaw yonent bi dal di wax ko ni ko yónnee ci ndaw ni ko nee leen ko na ma jox nee ko rasulullah ki yàlla yónni nee na nga jox ko caabi kaaba gi ba ñu demee wax ko ko mu ni ko ñàkk a gëm ni mooy rasulullah moo tax ma tëj kaaba gi ñëw yéeg fii bu ma gëmal ni mooy rasulullah du ma tëj kaaba gi di yéeg fii Ali na bi Talib ni ko bàyyil ma dem laaje ko caabi ci yonent bi ni ko demal xam nga moom dafa tàng yi dafa ñëw rek daal di ñol gu yéeg ci kaw kaaba gi fekk ko fa yéeg escalier bi yéeg yéeg yéeg ñol gu ñol gu ñol gu ba àgg ci kaw fekk ko fa daal di téye loxo bi weñ ko ba loxo bi ni tàll damm caabi ji wadd yi daal di koy for daal di cëppeelu daal di ñëw jox yonent bi mu ubbi bi ñu duggee ba pare rek Abbas ni ko ah comme waa saay-saay la caabi kaaba gi booy boo rek nga far ma ko jox benn yoon man ma téye ko waaye ci ni yàlla ni yonent bi di yare njabootam ci maandu ak mbaax te yàlla jàngal ko ko eh, bi loolu amee rek ci saa si la Jibril ñëw parce que comme dañu waxoon Ousmane ni ko bu ñu paree dañ la koy delloo donte am nañu ak moom problème ba yooyu yëpp am ci ba loxoom damm waye waxon nañ ni ko buñu paré dañ la koy delloo ba ñu nammee jël kaabi eh, caabi gi nak jox ko jox ko abbas ca la jibril ñew gaganti len daal di wax yonent bi ni ko inna allaha yamurukum an tuddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum an tahkumu bil adli ni ko ah borom bi kat moma yoni neena mi ngi len di digal ngeen mandu te lu ngeen waxanteen te waxanteeti ak nit ngeen respecté seen kàddu bañ ko fecc kóllëre te bu ngeen de atte yi tamit ngeen atte boo xam ne da ngeen koy teg ci maanu loolu mu nekk eh, matuwaay boo xam ke képp koo xam ne yaa ngi cim réew ji jaboote ko mbaa nga bëgg ko war nga ko bàyyee xel waaw te Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na réew mu amul justice la fa la fa nit di dëkk réew mu amul justice nan la fa nit di dëkke nu mu fay dunde nga xam yonent bi njàngale sunu boroom ak njub gi ko yàlla yekkeewal def na ci lu nekk kon su ko defee jikkoom yooyu nga xam ne yàlla tagg na ko ci mëtee ñu koo jël gànnaayoo ko pour mën a mën a dem ndax tey lii ñu tàmbalee di ko wax muy mbiru élection yi jub si waxna len ci waxtan yi passé mani len e eh, nit ñi war nañu di setantal yu bari di ko xool ndax lu nekk day am tusan. te mbir bo xamul tosan la pour nga atté ko day jafe mani len leen réew mi ñako jëk yor moy président Lamine gey wala sax Ngalandou Diouf ak ay Blaise Diagne ak ñooñu ba ci président Lamine ba ci Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci abdoulay wad amu ci kenn ko xamni intention ñom ñep ñu ko ña bu njëkk ak ñiko yor léegi ak ñiko bëgg yor ñep dem intention lañ yor moy amu ci kenn ko xamni da nga sa xol ni xaaral ma laaj rew mi taal ko xaaral ma laaj rew mi yaq ko xaaral ma laaj rew mi toroxal leen xaaral ma laaj rew mi met ko en defet xaaral ma laaj rew mi fexé bañu xiif faju ñu jëkk ña ko yoroon amuñu woon boobu yéene ñii ko yor amuñu boobu yéene ñi ko yóotu amuñu boobu yéene donc ñoom ñëpp seen yéene benn la mooy ku ci nekk moo xam dinga man li nga wax moo xam doo ko man waaye sa yéene daal mooy na baax waaw waaye boo ñëwee ba agsi nag bañ jox la ko la nga waxoon doo ko man loolu ñu jëkk ñi ñu mujj ñi ñëpp looloo ci am la nga waxoon doo ko man waxuma da doo ko nangoo def mais doo ko man mani nag waaw garab réew mi gar nañ ko jàppee garab garab gu sëq lépp nit ñi ni da ki ñi ko soxla ni damay yéeg ci garab gi gësam ko meññeet mi wadd ñëpp for waaye garab gi ku yéeg daanu ma ni waaw bu ko defee ku yéeg daanu ñu la toppal puusal fee mënoo mënoo yéeg da nga mu yéeg bàyyil ma yéeg man te ki la koy it bu yéegit day mujj daanu boobu ba léegi loolu la seede di ko gis ma ni waaw est ce que duñu xoolaat garab gi ba xam amul phénomène bu nekk ci garab gi di di tee kenn yéeg ci ba ànd ak sa sago ba li nga bëgg nga def ko loolu mat naa xam te loolu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al dafa mel ni junj na ko te loolu moo am garab gii di réew mi nee na dañ ko war a sangat wax naa leen ko fanweeri at man laan manaan leen sangat leen réew mi loolu la wax de déggu leen ma te réew boo ko sangul te réew nee na jikko lañ koy sange te boo ko sangul ak jikko mu sangoo deret loolu bés bu nekk waaraatekat yeeg ñëpp ñu ko daawul tudd sax nga xam ne moom seen yoon newul ci moom faale wuñu ko sax bi mu génnee àdduna ko wax dugal ko ci waaw ko wax rek dugal ci wax jooju ah sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy noxoon na ni nañ sang réew mi te bi mu fi nekkee kat sa làmmeñ du juum sax ba tudd ko xalaatoo ko sax su téeméeri xel xalaatu ko waaye nag léegi ku ne nga koy wax naan ah waaw Cheikh Tidiane waxoon na ko de noonu na dañuy sang réew mi ah bu ñu ko sangul dina sangoo dara am na sax ñu naan waaw dañoo waroon a dem ca moom laaj ko mu wax ñu nuñ koy sange mais wax na ko amu ci lu mu bàyyi détaillé na lépp nee na réew jikko lañu koy sange bu ñu ko sangul jikko mu sangoo deret nee na te réew it boo koy sang da nga koy dëj mu diju diju bu dëgër bu dijoo nga door ko mën a sang te boo koy dëj danga koy dëj ci légitimité légitimité boobu nga koy mën a dëj pour man koo sang léegi nag fi ñu koy dëj di sangu nag moo ta ticc loolu nag mooy responsabilité état bi mooy légitimité waaw loolu la sëriñ bi leeral ko nañ léegi nag garab gii di àdduna nag te ñu war koo sang te sanguñu ko moo tax liy lore mi ngi ci waaye maa ngi leen di waatal ni ndegam ñu jëkk ñi ku yéeg daanu ñi fi nekk ku yéeg daanu ñu koy yóotu ku yéega di nga daanu taaka sangatuñu réew mi te mooy defar ko ci wàllu jikko yéeneente jàmm xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te mu ci histoire xaba euh, abdullahi ibnu xabaab hadith bobu bu laté la man dama koy waxtane toujours waaw Abdullah ibn khabbab dañu ñëw ci mom niko te julit la te ñu doon laaj ay julit lañu niko lo xam ci abou Bakar Sadiq mu ni tedd na yiwna niko lo xam ci Omar ibn khattab mu ni tedd na yiwna lo xam ci usman ibn affan mu ni tedd na yiwna lo xam ci Ali ibn Abi Talib mu ni tedd na yiwna ñu ni ko naafeq nga mu ne luma def nafiq ñu ni ko da nga wara nafar ak kenn mun leen yàlla wax na ñëpp nañ leen yemale saaba yëpp ay ay biddéew lañu koo ci àndal jub ngeen farak kenn waaye dégluwuñu ko xanaa yóbbu ko ca dex ga rendi ko mënuti ko rendi ko ni ñuy rendi xaru tabaski te ñu ko def di ay julit ki ñu ko def di julit ba demee nag di ko di seeti seen benn partenaire bu ñu amal ay pacte ay contrat commercial te kooku chrétien la ndaka chrétien bi yëg na événement bi bu yàgg ñoom jullit yi dañu ko jub rek mun leen wu ñeeku leen seqatunu dara ndax ku mënewul ak ki nga bokkal lépp keneen koo ni mëne nga ak moom waxoo dëgg te li ngeen def ñaaw na ni leen nag dinaa leen wax addis boo xam ni Moussa waxu ko Aïssa waxu ko seen yonentu Muhammad moo ko jàngale seen yonentu Muhammad nee na bu ngeen bëggantewul yërëmantewu leen dimbaleentewu leen ñaan leen yeneen yéeneentewu leen jàmm suturaalantewu leen yàlla dina wàcce ñetti nattu nattu bu njëkk bi moo di taw bi dootu wàcc ni mu daan wàccee taw bi dootu wàcc ni mu daan wàccee taw bi kay day wàcc ña ko soxla di bay ak a sàmm du gis ndox di maral ba seenu jur dee seen mbay yàqu ña ko soxlawul dëkk ci taax yi ndox ma ñëw nangu kër kon taw bi dootu wàcc ni mu daan wàccee crise u ñaareel bi mooy wërsëg day yomb ku nay jafe ku tabe wërsëg day yomb ku nay jafe ku tabe loolu noo koy dund crise ñetteel bi mooy borom yërmande du gouverner boroom yërmande du gouverner am amoon na yërmande tabe woon na baaxoon na ba mu gouverner waaye buy toog ci pouvoir bi rek yàlla di ko soppi parce que population bu bon buur bu bon la leen yàlla jox loolu su boobaa dangay ngay daal dal ci kaw réew mi ak population bi xam ne ñoom ñoo war a defar seen seen bopp door a am buur bu ñu bu mérité ak ku baax man damay wax ne Sénégal bu ñu demoon jëli dem ca Màkka wala dëkk yi nga xam ne dañuy dund lislaam ju baax ñu ni seen i njiit alquran la lañuy teg seen tànk ak sunna ñu dem jëli ca kenn indi wala ñu jëli président des États-Unis wala ñu jëli président bu ci réewu européen yi indi ko Sénégal ak ay mu indaale ay manettes yoo xam ne ay milliare milliards ci nekk ñëw toog ci Sénégal gi itam nekk président bi. Senegal du dox te du tey itam ma xamal leen ni dina am équipe boo xam ne ku baax ku bon la yemale ñoom wax ju bon dong ak ak ak ak critique lañ fi nekk moom boo yeboo ngay di yendu jaaras ak kursu di borom xam-xam di jëfe alquran nekk président Sénégal gii am na ñoo xam ne nii dañoo xamul wax nit lu baax lu bon dong lañu xam moom lañ lay wax ba ngay wàcc boo dee borom alal du dul jeex itam ñëw fii yor alal ji di di ko di sotti ci réew mi di liggéey itam am na fi ñoo xam ne moom boo yeboo joxe ba dee diingat dong la ñu fi nekk ak critique ak wax ju ñaaw ndax wax ju bon dong la ñu xam moom loolu fii léem ni boroom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm réew mi moom tant que defaruñu jikko yi nit ñi tegu ci yoon buur bu ñu mën a fal bu yeboo ñu tàggat ko natt ko consulter ko seet ko ba ni waaw kay kii moo baax ci noonu am na diine am na lislaam am na xam-xam am na yërmande am na nàngam ba tànn ko bis bu ñu ko nee tegg ca pale ba bis ni ki tey te réew mii seen seen melokaan yi jóguñu ci guddi gum fa fanaane bu subaa yàlla dina soppi jikkoom dumaa ko xeet bi waaw ndax yonent bi nee na buur bu xeet bu bon buur bu bon la leen yàlla sédde waaw kenn ku nekk da ngay xaar ba mérité cër door a door a laaj cër ba kon su ko defee wax ji mën naa gàtt coow li coow li coow li daal nit ñi nañu defaraat seeni jikko te lu nañu teg ko ci maandute teg ko ci justice boo xam ne bu tegu ci yoon la ànd ànd bu rafet xam ne ay bokk lañu balaa lépp ànd xam ne réew mi ñoo ko bokk te Sénégal réewul quatorze millions ñu ne quatorze millions yeneen réew yi ngay dégg ñu naan quatre-vingt-dix millions yow ngay quatorze millions Sénégal la ngi tuutee tuuti réew su ndawa a ndaw a ndaw ba néew mbooloo waaye lëjal àddina bi euh, lëjal àddina bi lool lool lool lool bari nañuy wax ñime nañu problème ñime nañu critique ñime nañu coow ñime nañu lu nekk te quatorze quatorze millions donc boo demee allemand yaak français ñu ngi ci ay quatre-vingt-dix millions lu nekk moo tax benn kii wax na ko benn benn benn tubaab jigéen la ma koy nett li fu nekk waaye xam nga xam nga tubaab bi li mu wax dëgg la neexul ci xol waaye dëgg la te du jullit de du jullit nee na boo demee Chine ak Inde diggante ñaari réew yooyu am nañ ci ay yàlla yoo xam ne dañu ko préparé teg ko fa def ko yàlla di ko jaamu am nañ ci lu toll ci cent cinquante yàlla yoo xam ne am nañu ko di ko jaamu gëm ko mbooloo topp mbooloo topp ko am na fa te Chine ak Inde nee na bu dee aqida muy pas-pas ngëm-ngëm kii gëm lii kii gëm lii comme fii rek ni mu mel ñii ni Tijaan laa ñii ni Murit laa ñii ni Xaadir ñii ni Laayeen soo demee ci diggante ñaari réew yooyu huit cent juróom téeméer ci ay aqida ay ngëm-ngëm am nañ ko tubaab bi nee na am nañ fa am na fa mais nee na ak loolu yëpp nag yàlla ya bari na ngëm-ngëm ya bari na waaye noo ngi ci sunu jàmm waaye yéen jullit yi nag benn yàlla ngeen am am benn yonent am benn téere am benn kaaba te bu ñëwee ci réewu jullit yi fekk seen tali yi xonq cooy ak deret te yéenu neen yéenay reyante ki gàddu jaas yi di rey naan allahu bar ki ñuy rey naan allahu akbar te lépp yéenu nen la te loolu noonu mu ko waxee ci cadre jullit yi loolu moom ñun ñëpp xam na ni moo am benn yàlla benn yeneent benn kaaba benn téere waaye tali yaa xonq cooy ak deret rayante bu dul jeex ñee am euh, téeméeri yàlla ak juróom fukk ne ci jàmm ñee am euh, tabaarakallaahu ñett juróom-ñetti téeméeri aqida parce que ngëm-ngëm ne ci jàmm ñun ñu ni benn aqida lañu xam am mu islaam lañu gëm mënunoo nekk ci jàmm xanaa di reyante te loolu moo law ba dugg fu nekk ahzab yi dama doon wax naan boo ko dugaloon biir Sénégal day yemale ko biir Sénégal donc di nga gis ni séparation boobu moom ñoom ñu ngi tàmbalee ci tarixa ak parti politique yi koo bokkul tarixa sam noonu la koo bokkul parti politique sa noonu la te tarixa yooyu tamit boo demee ba ca biir tarixa ba nga xam ni kenn ko fondement woon samp ko dajale ñépp teg leen ci wenn yoon ñoom ci seen bopp ñoom doom yu góor ga ñoo séddali ko séddoo nit ñi kenn ku nekk dem sa wàllu bopp koo toogal tudd ka ca des pare na ci yow hmm? nga dem ci parti politique yi kon nag mim réew kan moo ko mën a yor kan moo capable pour mën a yor Sénégal gii Sénégal mel ni réew bokk ci réew yi kawe yi ndax pois bu diis bii kenn mënu ko yenu kon tabarakallahu ñoo ngi leen di fàttali numéro bi mooy 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy numéro bi ñu ngi eh, fii ci Safina FM 98 point 2 su ko defee daal ah réew mi moom jaxasoo na la Alaaji Ousmane Gueye daan wax papa imam Moussa Gueye nee na Sénégal a ngi nii ëmb ba diis kenn xamul nu mu nar a wasin léegi ñan ci yaakaaroon nag pour ñu taxaw teg nit ñi ci yoon ñoom seen intere yi bopp daanaka moo leen yitteel waaw mooy ñu ñu tuddee boroom xam-xam waaw Ahmed Chawqi waxoon na ni ara tuufaan ahlil garbi wa oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, mbooj euh, nga sant. ah déedéet yow kay waaw man kan laa sant. kan na nga def. Mbodj ñu ngi ziar bu baax. alhamdulilah barakallah. alhamdulilah alhamdulilah. dem laa Deme laa tudd. waaw Mansour Deme. damay ñëw foofu ci zaawiya bi ah, saa yu ma fi nekk ci dëkk bi. waaw waaw da nga ñëw ci zaawiya. tabarakallahu tudd nga fii koo xam ne ci sama wëndër la ci ak bëccëg mooy imam waaw kooku baax la kooku moom. maaxa kooku moom kay ku ko royoon ay bu ko mi xawoon xamoon dañu koy jël rek. wallaahi daal di koy wane ne roy leen ko. ca yar baag teggin yaag dal gaag. xam ab xàmme gaag yëpp. kay taarkalla waaw eh, mu mel ni ki nag. waaw. nee nga duut baram li nekk ci réew mi loo xam ne kenn du ko werante. dëgg la. ñépp teg nañ ci seen bët. Mhm. teg nañ ci seen loxo. Mhm. benn werante amu ci. dëgg la. Mhm. jullit ñi li leen indi retard fii ci réew mi ak yeneen réew yi yëpp. mbir mi yëpp a ngi noonu. loolu dëgg la moo am. kañaan la gu mat gu matale. Mhm. di yëjji sa moromu jullit comme yow. Mhm. jàppoo ko sax ndax moom muy jullit boo gisee jullit di jubal julal jullit di ko di ko jox caaseeke bomb. Mhm. daf ko jàppeewul ni jullit moo tax. lu nekk mun na ko koo teg. loolu dëgg la loolu am moo tax àdduna bi fi mu toll nii. Mhm. jullit ñi mooy seen problème bopp mooy liñ nekk jullit. loolu dëgg la loolu dëgg la moo ñu tax a new doole. loolu dëgg la. moo tax fuñ fabee musiba tekku ci kaw jullit. Mhm. te jullit mooy jël musiba tekku ci kaw mbokk jullitam. moo am loolu moo am. ah loolu nag. ko loolu yoon woo wëññeeku wuñ ci. Mhm. ah du baax de. loolu moo am Mansour Mansour rafet kenn du baax fenn. Mansour loolu moo am. wallaay loolu moo am wax nga ko de wax nga wax ji de wax ji de ñëpp war nañ koo dégg. loolu dëgg la loolu dëgg la lii de moo am. loolu moo am mooy mooy. réew mi moom pëccaxoo bi nga fi gis lépp. té luñu fi def lu rafetul lépp jullit ñoo koy def. amul ñu naan ñoo koy def ñokoy def ëpp kay. ñoo def ñokoy def. ñuy naan sangara ñun ñokoy naan. waaw waaw carte ñuy njaaloo ñoy njaaloo. waaw suñuy wula wurik amul ben werante lolu mo am sur lolu moy ah, dëgg. kon nak ñu ngi dékk suñu loxo yalla man de li yalla rek la xam ne mom moom bu ko neexee. <laughs> waaw yàlla mu ngi way bu dul loolu. Ya waaw lay yoon yi ñu tegu nii moom. Ah. jëmul kër de. jëmul kër du sotti maa ko wax dañuy dañuy dañuy campagne meeting ba son ab mu fa la dara du sotti de cey wax ji kay leer na naññ wallaay wallaay mbir mi leer na naññ wallaay problème bi leer na naññ wallaay solution bi nag anamu ah mu ngi biir mango yàlla xam mu ngi doon xanaa ñaan rek waaw kan jërëjëf Mansour dem dem dem ñu ngi ziar bu baax jërëjëf ñu ngi kontaan ci contribution bi jàngale nga motale nga émission bi macha allah yàlla barkeel wallaay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf jërëjëf laaj Ousmane Gueye papa imam Moussa Gueye moo ko daan wax nee na Sénégal ngi ëmb ba diis kenn xamul lu mu nar a wasin waaw waaw moo am parce que nit ñi moom ñun ci doon yaakaar mooy borom xam-xam yéey ñu ñu naan boroom xam-xam waaw waaye li Ahmad Shawqi wax ni ara tuufaana ahlil garbi yatqa wa ahlu sharqi saadatuhum niyaamu fa in lam yatina nuuxun bi fulki fa ala al islaami wa sharqi salaamu nee na mbëndum tuufaan ma ñëwoon jamono yontu yàlla noox Ahmad Shawqi moo ko wax jamono yonent yàlla nu mbëndum tuufaan a ñëwoon faagaagal nit ña mu ne mbëndum tuufaan moomu déparat na bii nag bi yoon nag dum ndox ay idée la yoo xam ne ci occidentaux yi la jóge jëm si ci sunu kaw waaye day nitu nooxanuy gënu demin ndax nitu noox ba mbënd ma ñëwee yàlla baaxee na góor gu mel ni yontu yàlla noox ma defar gaal dugal ca nit ña sobe leen waaye nag mbënn mii di ñëw di ay idée idéologie ak ay xalaat yu sew jóge ca occidentaux yi jëm si ci sunu kaw ña waroon a taxaw pour yett gaal gaalu xam-xam xalaat contrecarrer leen ba dugal ca nit ña musal leen ñoo ñooña naan ataayaa leen yitteel ak nelaw kon nag comme noonu la demee man gàddaay na penko jàmm ak jàmm lislaamoo jàmm ak jàmm dem na loolu mooy li nekk loolu nun ñëpp moom lañuy ñu dund loolu mooy li ci nekk kon tabaarakallaahu réew mii bu nu ko yàq réew mii bu nu ko yàq teraanga mag ñu baax fi tëdd mag ñu baax a tëdd ci sunu suuf si waaw kon nag nañ leen ko warmaale mag ñu baax ñi dey ah fa ñu nekk am na lu leen yàlla may am na lu mu leen manloo waaye bu ñu nu jéppee seetaan ndax réew yu naar yaa nga ne arab yaa nga ne sang bi tëdd fa sidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam toll na mu toll waaye ba ñu xamul gëddaam nekk ci lu leen neex ba mu jéppi leen seetaan na leen ñu tojantey bopp waaye fii itam bu nu sàgganee ba mag ñi nu am ñuy protéger réew mi jéppinu ba croiser les bras génn ci seen bopp te seen cheikh nee na bu ñu demee ba suuf si nar a yàqu yaxeet ci ay jikko yu sew ak tuurante deret nawaa mis ñi ñooy ñëw jël mag ñi yóbbu leen tuxal leen waaw te loolu ko nekk xam ne ni pouvoir la yoo xam ne suñu borom moom lu mu bëgg a def def ko waaw nit kay lañ naan dangam dina am ñu naan nit mënu ko waaye yàlla moom lu ne la mën bala ñu mag ñi jéppi di gàddaay di génn réew mi ay ay nawamis di leen jël di yenu di yóbbu ah, réew mi di tàkk nan ci wax nit ñi nit ñi nit ñi daanaka rek alal doo nga leen yitteel foo dem nag ma xamal la ko li alaaji moor mbay daan wax naan loo nekk nekk mag te amoo xaalis ab gune nga loolu moo ne ci xeli nit ci boo foo dem boo dee seetlu loolu loolu ngay gis kër sëriñ saak kër ministère yak entreprise yak mbolo yak fo man di dem koku ñu wax xaalis mom mo fa chef ñako yor ño bokku ñu yorul bokku ñu te damay faral di wax ne gis nga boo ko jamono bi tollu sax bo ci dund am stabilité boo bo bo amul dara yit nga sagal sa bop ba nit ñi baña amo bis buñu xamé xamee amo dinañ la ñoññental ñoññental go xamni dem gas bàmmeel yi dugg ci dong ngay déssé ndax lo rek la set ci nit nak loolu rek la xol ci nit waaw ndax am ndax niru na la ko nara am ndax aman yoy rek yoy rek la xol xool bu ñu la xolé yow sax ci ndimbal sax bu fekke gis nañu ni yaangi commencé di jebbi di jog sax dinañu am yaakar ci ni amana ku la lebal di nga mën fay waye bu ñu la gisé ngay goy lu di melni kuy lax dañ lay faf di ben yoon jall waaw lolu moy le gorgo doon wax neena jamono bu jëk ba bo amé ben da ngay wër borom juróom-ñeent foo ko seen dab ko boo ko ko waxee mu yëkkati ñeent jox la nga am juróom mu am juróom nee na looloo amoon bu njëkk boo amee benn da ngay wër borom juróom-ñeent ni ko man de benn rek laa am borom juróom-ñeent yee jël ñeent jox la nga am juróom mu am juróom mais nee na jamono bii borom benn day moytu boroom juróom-ñeent fu mu ko seen booyee boo samp xelam daw ndax bu la jàppee sa benn boobee lay jël mottali ko ci juróom-ñeentam am fukk yow nga ba faw adduna bi noonu lay doxe kon tabaarakallaahu noo ngi teg suñu baaraam fii ba alxames ak jàmm tabaarakallaahu lu ci jub yàlla baax lu ci dëng nag nit a matul nit a toll noonu kenn ku nekk na nga toll ngay waxe parce que niveau xam-xam yem fa ngay waxe yal na yàlla dolli ñu toog fex yal na yàlla jàppale ñu ñu ngi nuyu sant suñu directeur xaj ñu ma nuyu woon nañ ko ñoo ngi koy santaat tabaarakallaahu noo ngi nuyu tamit tabaarakallaahu sunu technicien Samba Sy di ziare sunu Serigne Thierno Hamidou Yoro Bane di jaar xajaa ñu ma euh, Eh, tabaarakallaahu wëlëram woowu di Ahmed Lamine mbay eh, nekkoon Sénégal te génn àdduna di journaliste boo xam ni bu qualifié la ñoom ñëpp ñoom tabaarakallaahu ak borom këram di xaritu borom këram tabaarakallaahu ñu leen koy jaal di ko jaal mbooleem Sénégal réew mi ah di ko jaal eh, président de la république di ko jaal parti yëpp di ko jaal mbooleem Sénégal Ahmed Lamine Mbaye Ahmed Lamine mbay nekkoon tabaarakallaahu ancien ci fële ci E, Sénégal e, tabaarakallaahu di toppoon ci directeur bi e, Mangone Ka yàlla dogal mu génn àdduna wax nañ ko keroog ci dëj bi ñun ñoo ko talal jàng alif ba franco arab moo topp branche mu dem ba sori ci jël branche su français bi tabaarakallaahu ba yàlla dimbali ko mu nekk journaliste bu qualifié ñu bari xam nañ ko di wóllëre ñu ma directrice Hadj ñu ma ba ak boroom këram ñu ngi ñu ngi leen koy jaal tabaarakallaahu di ñaan yal na yàlla yërëm yal yàlla defal ko jàmm ca barzax yal yàlla wutal ay waajuram ku ko ku ko ëpp njariñ ci ñoom ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa